jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi de wàllu cour de justice bu CEDEAO mbir Ousmane Sonko jëm nag ci radiation bi maanaam nag li nga xam ni kon génnee nañ ko ci lu ñel liste de parrainage yi mu mel ni kon loole juróom-benn fan ci weeru novembre bi lee dinañ ci mën a xam dara ci fàttali ginnaaw kon demande bi nga xam ni jagleel nañ ko nag waa AGE ca noonu itam bokk na ci ñu ni kon ñàkkum courant gi ak internet bi file ndakaaru moo ko daal di waral ba tax na avocat wu état bi kon mu ni loole dinañ ci daal di waxaat lu ñeel kon avocat wu opposant bi di Ousmane Sonko ngir nag mbir mi ñu xoolaat ko bu baax a baax ñu ni kon ki nga xam ni sax kon moo taxaw ci mbir mi Juan xanko la avocat ba koy layel moom sax mu ni ak kile di comorien bi di say lafiru mbir moomee kon dinañ ko daal topp